naataal fukk ak ñett ci jamono yooyu buur bu ñuy wax erodot joxe woon na ndigal fu waay nekk nga dellu ci gox bi nga jóge ngir ñu bindaale la ci la maryaama ak yusufa delloo seen dëkk beteleem bi ñu yegsee amuñu kenn ku leen fat kër yépp feesoon nañu ak nit ñu daldi dem dal ci uddu jur gi ci udd boobu la Jésus gane àdduna guddi googu ab malaaka feeñu na ay sàmm yu doon sàmm seen gétt ci ab tool mu xamal leen ni xale bu kéemaane kiy musal àdduna juddu na si saa si malaaka yu bari feeñ fi jaww ji di woy di màggal yàlla bi sàmm yooyu gisee liir bi ñu daldi dellu di màggal yàlla di ko sant ci li ñu gis ak li ñu dégg